waaw li ma mën a wax mooy euh, élection bi di ñëw dina doon élection bu gën a cher ci euh, wàllu koppar parce que mosuñu organiser élection boo xam ne euh, am na ñaar fukki candidat yi ñuy jongante loolu mosuñu ko fi am donc c'est la première fois ñu am élection boo xam ne lu mot ñaar fukki candidat ñoo ngi jongante loolu dina andi ay eh, jafe-jafe lu bëri ci wàllum organisation parce que su ñu jëlee opération de vote yi ci boppam euh, li mu laaj mooy dañu war a imprimer ay bulletins de vote pour kenn ku nekk maanaam ci euh, ñaar fukki candidat yooyu euh, ba pare ci pendant période de campagne bi kenn ku nekk ci ñoom am na temps d'antenne dañ ko war dañ ko war a jégleel ci RTS mi nga xam ne mooy média public Euh, loolu nag dafa laaj ñu jël ay équipe télévision jox leen ko ñi wër dëkk bi ak ñoom loolu tamit lu diis la ci euh, ni organiser élection yi waaye ni ma ko sàng rek ci ci nasaraan élection moom amul prix ndax élection euh, moom mooy permettre askan wi tànn seen i njiit élection tamit moom mooy moom mooy moom dëkk bi am daal ndax su dee ki nga xam ne mooy jiite réew mi. askan wi ñoo daje fal ko booba dañ dañ ko dañ koy nangu dañ koy accepter daal di ko gunge pour que mu mun a jiite réew mi euh, mun a euh, développer comme comme réew mi kon élection amul prix il faut ñu def ko dina métti lool waaye il ñu def ko ñu fexe tamit euh, en plus des aspects matériels ñu fexe bi fichier électoral mi ngi xam ne fala la électeurs yëpp nekk n'est-ce ñu fexe ba ñu mettre ko à la disposition des parti politiques bépp parti boo xam ne wala bépp candidat boo xam ne da nga war a dem ci jongante bi wala ñu citoyens yi sax n'est-ce pas am ñu droit n'est-ce pas euh, ñu ñu ñu jël fichier électoral électoral bi teg ko foo xam ne ku nekk di ko mën a gis euh, même su dee ñu citoyen citoyen mënuñu ko gis mais au moins parti politique ak candidat yi ñu mun a avoir accès à ce fichier là ñu xam lan moo ci nekk su ko defee beesoo élection bi su jotee kenn du fi nekk di accuser parti au pouvoir que dafa daf ko maanaam daf ko daf ko changé dafa am lu mu ci laal et cetera pour mun a favoriser candidat bi xam ne moom mooy seen candidat kon nu mu gën a gaawee nañ ko mettre la disposition des citoyens mettre ko à la disposition des partis politiques waaye tamit fexe ba carte électorale bi ñu xam ko parce que doo toog ba ñu ne élection yi euh, gannaaw suba la nga ne léegi euh, maanaam euh, dison ñaari junne wala fukki junni wala ñaar fukki junni bulletin euh, bureau de vote ñooy am ci Sénégal su ko defee euh, ñeneen parti yi nga xam dañoo néew doole dañu mun a am ay représentants dans tous les bureaux de vote kon carte électorale bi dañ ko war a euh, fësal nu mu gën a gaawee ñun ñëpp ñu xam n'est-ce pas ñaata bureau de vote moo am ci Sénégal ak fan la bureau de vote yi nekk n'est-ce pas ci ban bërëb ak ci ban gox la ñu nekk comme ça mu leer ci ñëpp ku ne jëlee pour mu fa am ay représentants parce que yi dafa am solo. waaw ñoo ñoo tax ba ñu garantir maanaam la fiabilité du processus deuxièmement euh, ñu fexe ba donc suisse euh, électorale bi jox ko jox ko citoyen jox ko parti politique yi je crois que loolu yëpp suñ ko defee dinañ am éléga euh, dinañ am élection boo xam ne du am ay ay du am ay coow du contestation te au lendemain du 25 février su dee deuxième tour amul ku nekk ñoom dañ ko mën a jóg sa kër xëy dem liggéey waaw je crois que loolu euh, suñu ko defee dinañu violer maanaam li nga xam ne moom mooy confidentialité wu élection waaw euh, dama jox exemple rek ku mel ni man ah euh, mënuma dem tànn juróomi bulletin de vote bàyyi ñeneen yi loolu mooy ñeneen du ma leen voté xam nga cour la CEDEAO tribunal de CEDEAO lan moo taxoon mu laaj pour ku ñu jëli fi parrainage bi loolu moo ko andi ndax parrainage. su su dee citoyen bi pare na benn candidat rek day wone ne moom dafa fas yéene voter candidat boobu ah, loolu dafay maanaam euh, gàllankoor kumpa gi nga xam ne moom moo war a am ci opération électorale maanaam képp kuy wote rek waruñu xam kan nga kan kan kan ngay woteel wala kan nga fas yéene woteel moo taxul Cour CEDEAO ne nañ fi dindi parrainage parce que parrainage day wone kan la citoyen bi fas yéene voter te loolu day yàq confidentialité les cours la CEDEAO mënu ko dax ci parrainage nga bugg ko ci élection parce que élection moom soo jë tan tan tànnee juróomi bulletin de vote loolu mooy ñeneen yi doo leen votel waaw même su dee xamuñu kan ngay voté ci juróom yooyu waaye xam nañu que yow doo votel ñi nga xam ne ñoom ñu ci des ñeneen fukk ak juróom kan yoo xam ne ñoo ci des kon je pense que dina tax euh, euh, euh, maanaam wote bi gën a gudd dañu fi ubbi bureau de vote bi ay peut-être ay vingt heures ci ñeneen gox yi parce que jëli ñaar ñaar fukki bulletin de vote dugg ak ñoom ci biir n'est-ce pas voté génnewaat ah dina dina yéexal mbir mi waaye ni ma ko waxee élection lu am solo la ci démocratie ah, am na solo trop ci stabilité réew kon lépp loo xam ne war nañ ko def ci sacrifice ci wàllum alal ci wàllum koppar ak ci wàllu wàllu wàllu suñu temps suñu jot jaar nañu def ko pour que réew mi mun a fal ki nga xam ne eh, moom la ñëpp di nangu ne moom moo falu n'est-ce pas ñun ñëpp ñu ànd euh, liggéey ak moom pour développer réew mi.